ñu ngi ci daralu fas ñëwoon xool marché tabaski bi nan la defee ci daral bi bon tasante nañ benn client ñu fekk mu jënd xar ñu laaj ko déjà nu mu gisee marché bi a xar yi mbax cher nañu wala cherul sëñ bi noo tudd. man maa ngi tudd Ibrahima Daabo maa ngi dëkk rue 37 angle Blaise Diagne euh, waaw xar xar xar yi ñu ngi ñëw quoi wante xaalis amagul instant bi man loolu laa gis quoi. waaw wan dama faral di ñëw fii chaque tabaski di ñëw si sama waa ji góose di fi jënd xar quoi parce que man xaru yar rek laay wër quoi te moom xar yu baax lay yor loolu moo tax may ñëw si moom quoi. nu xar yi cher nañu cher nañu. xar yi moom cher na quoi sincèrement parler cher na waaw pour nga am xar bu baax il faut nga dépasser ay deux cent cinquante mille trois cent mille oui pour nga am xar bu baax su fekkee ay xaru coogal da ngay am ay cent quatre-vingts affaire yooyu. loolu mooy xar sar na léegi quoi. waaw feebar bi moo ko waral quoi. feebar bi moo waral affaire bi am nii te gars yi dañu yéex a ñëw tamit te xaalis amagul instant bii nii waaw moo tax marché bi fu mu nekk nii ñu bëri jëndaguñu xaran dañ daan jënd di dénkaane instant bi kenn jëndagul. Covid bi daal jàpp na. jàpp na Sénégal jàpp na Sénégal jàpp na daral bi waaw affaire bi loolu la quoi. daral bi moom waa tey comme ni ma la ko mën a waay rek. xam naa dañuy commencé dina ne alhamdulilah daal ci daral bi wax dëgg clients yi ñooy ñëw par ndànk-ndànk quoi sans nag comme naam comme nam daan demee quoi mais demeewul noonu mais ñëpp xam na ni moom ren moom gis nañ li fi nekk mais clients yi daal ñooy ñëw ndànk-ndànk te ñooy passé. am na ne xar yi moom am na loo xamante ni duñ leen jàpp di leen seeral yenn seeraay yi xar yi moom gars yi oyofal nañ ko mais xam naa gars yi ñu ci bëri bëri dañoo génnagul quoi looloo tax gars yi ñu ci bëri. des ci ker ga dinaañ dañoo seer dañoo. waa ku ñëw si daral bi di nga am cent cinquante mille xar pour tabaski. carrément xar yi dem nañ mais soo dugee fii ren rek nga xam ne affaire yi moom wuute na quoi parce que gis nga fii nii tamit daa fees ba léegi même am na xar yu ñu fi jënd bàyyi lañ fi mais teewut xar yaa ngi fi daal yoo ama xamante amaguñ borom mais teewut ñoo ngi xaar parce que gaa ngi naan. nit yi dañoo amul fu ñu denc seen xar yi ak affaire yooyu noonu loolu daal ñoon ñëpp ñoo ngi koy patienté wax dëgg ne gis rek njàngat la ak laajte parce que ñun moom bañ laajtee ñu foo xamante ni ñoo fi jiitu tamit parce que ñun ñoom ay ndaw lañ tiitoon nañ booy laajte mais teewut buñ laajtee dañu ne wax dëgg dal leen xar yi wax dëgg ne yàlla benn bés rek mën na cee jar ak benn guddi parce que gars yi amuñu fuñ takk seeni xar loolu tax moom am nañ koo confiance bu baax xar yi dañuy jeex merci merci Eh, dañu ñëw fekk la ci daralu face bi euh ñu doona laaj déjà daral bi nan la démé daral bi fu mu nekk ni metti na trop waaw parce que client yi ñëwuñu te ñun am nañ fi presque 1 mois ci daral bi fi 1 mois am nañ ko fi lepp xaalis lañuy ñuy lepp lépp gars yi dañuy wax dañuy may ndox affaire yoy noonu mais bala ñuy may ndox day des une semaine waaw bala ñuy may ndox. kon daral du bëri coono. bëri coono la def lepp coono la. bu tawee fii dañuy bu tawee fii dañuy sonn bu tawee fii dañuy sonn sonn bu métti sax dañuy ba bay bëgg a dee yaa ngi dégg en même temps client bu ñu ñëwee boo ci waxee kenn prix du la sa xool da ngeen daf laa da ngeen ñu yàpp yéen parce que yéen yoru leen ay xar kese xanaa affaire noonu li ngeen ci def mënu leen ko mënu leen ko jaay te fekk affaire bi coono kese la ñun amuru moo ñu si dugal. bëgg ci daralu Fass ñi ngi taxaw ak benn jaaykatu xar ma laaj ko dèjà nu mu tudd. sama man Thierno Amadou Dia laa tudd. Thierno Dia waaw laa eh, mage dañ ñëw ci daral bi fekk la fii ñu doon laaj yow mi nga xam ne da ngeen di jaay xar nan la marché xar bi demee ren daral ma eh, phase bi nan nga ko gisee waaw daral bi daal gis nañ ko affaire bi daal doxagul xar amagul mais doxagul gisaguñu client yi loolu moo ñu xaw jaaxal ak coono daral bi li nga ñu fekkee fii daal yan coono fi am lu ñu am fii bëri na booy yi sàcc yi ak problème affaire place parce que da gis nit jël place deux mètres mun a demaa yor xar damaa yor xar fekkee daf ko bëgg jaay boo ñëwee li fi nga doon jaay sax doo mun jaay foofu yaa ngi dégg parce que ñun fii lañu doon jaayee mosuñu fii jënd place nit ñëw nga indi ay cinquante xar wala vingt xar nit mën a la place quarante mille wala cinquante mille clients yi ñëwaguñu wax dëgg yàlla ñëwaguñu ñëwaguñu affaire bi xaw nañu jaaxal na waaw ah xam naa coono coono aduna bi ak feebar bu ñu jógee nii rek waaw parce que loolu tamit dañ ko sooraale xam nañu nit yi bëgg nañ mais xaalis moom amagul parce que ñu ñu affaire corona ba léegi ñu ngi fii. ñu nañu xar dañoo waa xar moom dafa cher. Euh, ku am parce que SA yi boo amoo soixante quinze mille quatre vingt mille jëm kaw doo am xar. koo xam ne Burkina ba la mu wax ñu coono yi mu daj bu mu jógee Burkina ba bu mu yegg si fii. sama mbokk sama mbokk julo bi ki jógee Burkina bi li leen bugg a wax déggul français Burkina bi lay wax. ñun ñoo nekkandoo moom fii parce que ñun ñun dañ ko gis ñu yërëm ko ñun dañu doon yërëm suñu bopp mais buñ ko gisee dañ koy yërëm parce que dafa indi ay xar pour ñun bañ Sénégal ñàkk xar parce que ñun jaaykat xar mais bëgguñu Sénégal ñàkk xar parce que ñun ay doom réew yi lañu bëgguñu kenn lor bëgguñu suñu réew lor mais bu ñu amee ñu indi yeneen xar jóge yeneen réew ñëw suñu réew dañ koy dalal bu ñëwee ñu ñoo ko dalal mais am na coono yu bëri fii daal coono bu mu am fii bu njëkk bu muy ñëw ñëw ñëw suur bu mu ñëw ñaari xaram la ñu sàcc fii ñu ñoo jàpp xar yi boobu taxaw nañu jàpp nañu xar yi depuis 23 heures ba 13 heures ba 23 ba minuit bi mënuñu gis sa police te ñun ñu ngi nii si riven de Port Locé doo mun woo police katari mi ñëw doo woo mun woo benn police ñëw waaw moom bu mu ñëwee bu léegi dafa sonn loolu lay wax dafa sonn dafa sonn gis nañu coon bu mu am coono bu mu daj moom wax dëkk yàlla gis nañ coono bu mu daj ñu am nañu coono mais moom moo ñu gën a bëri coono ngay fere ay si yoon bi affaire lu mu wax douane yi ak affaire policier yi ak affaire forêt yi 4 million boo ko génnee sa ay xar yii wax dëgg yàlla ku ba nekkee jaakata har yo ko jeli gaddunoɗa bayde jooɗen ko jiɗin fillade de hmm. min ƴuyi burkina hmm. faami ngara sénégal hmm. min conna damuci amen wallahi so laawol ngol to riimi mune 127 la indi won 127 la indi woon dañ ko waxoon pour ubbi nañu buntu sénégal ñu ñëw ñu ngi premier fois ñëw mais coono bu ñuy daj moytu